waaw bon daje bi pour euh, jàpp ci combat bi rek comme ni ko président waxe euh, guerre la bu bu déclaré wu guerre guerre boo xam nag mënoo koo gis ki ngay geeral moo tax euh, képp kuy doomu Sénégal rek war nga ci mën a jàpp ñu ne comme ay tailleur lañ liñ ci mën a jàpp mooy defar ay masque dimbali mbokk yi comme dégg nañ discours ministre bi fan yii yëpp mi wax ci port masque yi moo tax ñu daal ñun suñu contribution ci guerre bi mooy ñu ñëw ay masque dimbali askan wi. dañ ko bëgg a teg nag ci loxo préfet bi ak euh, monsieur le maire. waaw masque yi pare na masque yaa ngi nii déjà euh, plus de 500 masques la yoo xam ne bëgg nañ ko jàppale waa dëkk bi daal. te en dehors de cela aussi képp kuy tailleur presque li daf la cee fekkoon quoi dañ daan ñaw ñu ngi doon ñaw di dimbali mbooloo mi mais comme gis nañ ni euh, ministre bi daal ni mu waxee mooy képp kuy kuy kuy sénégalais war nga mën a am masque moo tax ñu def en masse. ci turu association bi génnee génne masque yi waaw ci lañ yendu tey te xam naa dinañ dolli yeneen quoi li premier arrivage bi la rek. non 500 yi ci benn fan lañ ko liggéey matul journée sax demi journée la rek bëgg nañ defar 1000 masques ci benn jour bon bëgg nañ defar 5000 masques hmm. pour jàppale ko Sénégal daal jàppalee ko Mbour jàppale ko Sénégal. waaw impact bu méttee métti parce que gis nga heure bi ngay filmer li 3 heures la cantine yëpp tëj nañ kon donc am na impact bu mag a mag. tailleur bu doon liggéey ba vingt deux heures ñu ñu ne trois heures ngay liggéey boobu euh, benn impact la beneen impact bi mooy euh, depuis ñu déclaré ne arrêté nañ xew yi benn tailleur ñawatul waaw xew amatul tailleur yi ñawatuñu boole kook seeni charge nag parce que euh, crise bi terewul charge yi ñu ngi dox ba léegi koo fi gis fii borom kër la soutien de famille la te mu ngi ay charge mu ngi joxe dépense añ ak reer ak ndékki boole kook mu ngi fay location kantinam mu ngi ay factures yu ñu fayagul boog nag moo taxoon ñu bëggoon président lépp lu man ci dimbale ñu ko artisan yi euh, mu def ko parce que dégg nañ ay ndimbal yu mu wax mais dégguñ suñu bopp ñun artisan yi rawatina tailleur yi te yaakaar naa ñëpp impacte mais tailleur yi kenn rawu leen ñoo gën a impacté yaakaar naa parce que charge yi metti na location cantine yi cher nañ Euh, courant bi cher na bëggoon nañ nag lépp lu mën ci mën a dimbalee nit ñi mu def ko loolu daal lañ bëggoon mu bàyyi ñu xel bu baax a baax parce que yaakaar naa euh, artisan yi kenn du la woon wax seen importance ci biir réew mi waaw ñëpp gis nañ fi ñu fi ñuy contribuer ci développement bi loolu daal lañ amoon lu ñu koy yóbbante mu xam ne ñëpp ay njabootam lañ te lii dafa nekk loo xam ne lu yéeme yéeme la parce que mën na jur lu méttee metti tey phénomène Barça wala Barsaq mën na juddoowaat buñ amul taxaway bi ci war ñu ci bari dinañ nyau, ñaw ñu ci bare bari dinañ bayyi ñaw bu crise bi jexé la wax ñu bari dinañ bayyi ñaw parce que tay buñ ñu leen jàppalewul ya ñu bari duñ rew de redémarrer seen activité kon nag bëggoon nañ ñu jàppalañ ci bu baaxa baax maye bi dañ japp ni masque bi tay mënu yor sama kër masque yi mënu fi yor këru kenn té xeyna li premier jet la amna ño xamni ci biir yi ngi ñaw di jaay mais mën nga jaay ba ngoon jot loo dépensé sax doo ko am kon kon masque mënut a mënut a suñu suñu activité. parce que képp koo ci gis am na ñoo xam ñaar ba ñett wala ñeent ñoo xam ne mu ngi leen di employé lu bokkul ak seen i apprenti kon nag kon loolu loolu yaakaar naa ay ñaw masque mënu mënu mënu mënul faj lool